waaw donc comme ni mu ko waxee sànq. <laughs> fi nga yàgg solo. ngay def say combat. war nga fa yàgg continuer. dëgg la ci lu dëgg la. war nga fa ñu continuer. jël ko par exemple je savais que Liberté 6 extension la dëkk. mais face face face la daan ñëw. mu mel ni ki kon boog euh, Eumeu Sène ah. Tapha Tine moo ngi ci arène nationale. donc euh, Tapha Tine. je pense qu'on va le suivre donc Tapha Tine moom xamante ni voilà ah kan Tapha ah. yow yow yow yow yaa yaa ñu gën a xam environnement boobu ah Tapha si na. borom Bawol dugg si na. le vainqueur de si na. Tapha Tine ngi noonu. Malick Thiandoum si bu spectaculaire la dugg si. ndeysaan le géant du Baol est là. Ndeysaan Jacob Baldé mooy tuus noonu. voilà donc mi ngi noonu euh, Tafatina ah, qui a quitté la Médina pour rejoindre fi nga xam moo di arène nationale donc arrivé en premier d'après donc euh, l'information bi nga xamante ni suñu naata